yéen yu bootu ci kuréel bi nga xam ne ni dafa taxaw ngir ñu gën a mën a sàmmanteeg ak ak yelleefu jigéen yi taxaw ngir ñu yemale góor ak jigéen ci instance de gouvernance yi xam nga jigéen ak góor boobu promotion boobu dafa nekk lu am solo ndaxte euh, am na kenn ku ko woyoon suñu benn doom góor de day sol tubay mais jigéen dafay takk sër te su takkee sëram taxaw jàmbaaru kullu fi dirin yi lu ngeen yootu rek da ciy jot naam bëri na ay jumtukaay yi nga xam ne ni moom lañu tëral ngir gën a mën a jëmmal parité bi ci biir réew mi waaye ba tey des ñu koy jooyanti moo ne gannaaw bu ñu falee Bassirou Diomaye fay ci boppu nguur gi yaakaar daal dinay judd. un espoir et une volonté de cohésion nationale. waaye lu li mu jigéen ñi néew ci gouvernement bu ñu fal yees ñeent jigéen ci ñaar fukki ministre ak juróom ak juróomi secrétaire d'État tax ba jigéen yi bëgg ñu bàyyi xel ci yemale bi nga xam ne ni moom la ñu war a amal. lii nii dafay firndeel ni que ba tey dara soppeekuwul la ñu yokk si itam dindi li nga xamante ne moom mooy ministère bi nga xamante ne moom lañ jagleloon jigéen yi te nag ba tey taxawaluñu beneen structure bi nga xamante ne moom mooy wax lépp lu jëm lépp lu jëm si wàllub développement social ak économique jigéen yi ngir ñu sàmmanteeg parité googee ñuy ñaax njiitu réewum Sénégal ngir mu mën cee bàyyi xel buy tànn ay nit ngir jëbbal leen responsabilité wala rek bu ñu jëmmal ay politique publique. nañu vraiment renforcer nañu œuvrer pour que suivi participation effective et inclusion boobu ñu mën ko taxawal ñu mën ko jëmmal mu nekk engagement yoo xam ne ay engagement yu fort la ci jigéen ñi ak xale yi jigéen ñi. yéemale góor ak jigéen ci ni ñuy doxalee réew mi bokk na ci li nga xam ne ni mën na tax ba ñu dem fu sore ba tax na jigéen ñi di sàkku ngir ñu gën leen dénk ay postes de responsabilité ndax ñoom it ñu bokk ci ñi nga xam ne ni ñoom ñooy tawax réew mi ni ko sénégalais yëpp di xaaree.